Fatou Abdou Ndiaye la principale information mooy euh, journée sans presse ni ki ëllëg ci talaata gi différents acteurs yeey nañ ci yàbbi par rapport ak euh, boobu la actualité njàngat li ñu ci war a mën a def. alors c'est une situation très compliquée moom la aujourd'hui presse bi di dund je pense que loolu euh, mi ngi bëgg a def diir parce que ëpp na benn weer bi ñuy wax ne presse bi ñenn ñi seen dañ ko bloqué ñenn ñi daanaka lu jëm ci wàllu convention yi doon jot ci wàllu état bu Sénégal jotutuñ ko am na ci ñeneen ñoo xam ne it ñi ngi jànkonteel ay problèmes yu bari et loolu moom moo tax le président de la République waroon na mën a tontu les deux correspondances yi nga xamante ne euh, kuréel gi ëmb euh, nga xam ne ñooy patron de presse yi bind nañ ko ci ñu toog ñu jàkkaarloo ñu crever nga xamante ne euh, moom mooy sa jàmbat moom également mu wax ak li nga xam ne mooy presse bi ñu ubbi solution maintenant il n'est a am dialogue toog waxtaan la l'environnement économique des médias euh, yàgg nañu ba joyanti ko la ñuy def ba soppi xool naka la ñuy amee boo xamante ne dafay dëgër une presse boo xam ne dina gis boppam ba du jànkonteeg yenn gàllankoor yi nga xam ne aujourd'hui état mën na ko teg ba muy dem ba muy nekk banque loxo boo xam xamante ne honoré wul le Sénégal c'est pas bon pour l'image du Sénégal mais par rapport ak ñu a toog waxtaan ak ñoom ñi nga xamante ne mi ngoog Ndeye Fatou li ñu gis est-ce que nekkul volonté manifeste pour rey presse boobu ndax malgré sunu ay jafe-jafe laataa ñoom ñuy toog ñoom dañoo ñëw xañ ñu publicité ak surtout yenn ci ay convention xalal jàngal li ci wàllu wi bu fekkee ne journée sans presse bi Sénégal réussir na ko euh, signal bu bon la yëg ci ñi nga xam ne ñooy bailleurs yi bailleurs de fonds yi lii bu ñu koy capter comme signal du am benn sawarte pour mën a investir au Sénégal parce que euh, baromètre yi ñuy nattee démocratie ci réew boo ko génnee ci politique presse moom mooy premier levier bi ci bokk mmh. donc une presse non libre mais aussi une presse boo xamante ne dafa jàpp ne dañ koo sonnal xoxatal ko loolu dafay wan ne réew moomu démocratie nooyuwu fa que presse dafa nekk nekk benn organe wala sax instrument buy bokk ci doxalinu réew dafa bokk bañ leen ba dañ naan le quatrième pouvoir donte c'est pas un pouvoir à mon avis dafa am lu ñuy jouer comme rôle mooy contre pouvoir man loolu laa gëm léegi lu ñu dem ba méngale ko ak sañ-sañ mu di pouvoir yaakaar naa loolu du lu ñuy nasaxal ci biir réew rawatina réew boo xam ne dafa am ay aspirations démocratiques donc pour bailleurs yi baaxul ci suñuy notation au Sénégal mais aussi devant la face du monde sa va faire le tour du monde on est à l'heure de la mondialisation une journée sans presse au Sénégal danañ ko làkk ci chinois danañ ko làkk ci anglais làkk ko ci français espagnol ak langue boo mën a xalaat ba ci portugais parce que ñeneen ñi dinañ jot écho buñ ko jotee dinañ ko tas ci àdduna bi Reporters sans frontières déjà nekk na structure bu fi nekk te ñoom it dañuy rendre rendre compte au plan mondial ak lu mën a am euh, li ñu gis mooy depuis un bon bout temps presse bi dañ leen esselé esselé leen ci wàllu publicité esselé leen ci wàllu li nga xam ne moo di fiscalité mais aussi esseler leen ci yenn droit de diffusion yoo xam ne ñu ngi koy menacer ñenn ci ay organe de presse ak lu mën a am je pense que li gën mooy ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di patronat bi parce que patrona presse dañuy joxe liggéey c'est des gens yoo xam ne dañu créer emploi ne serait-ce que pour cela un état daf leen war a jàppale un état dafa war a waxtaan ak ñoom ndax lii ñuy def contribution la ci activité économique liberté war mooy suñu defee journée bi après on va évaluer su ne am na yeneen plan d'action ak yeneen mesures yoo xam ne war na cee topp du ñàkk ne taskatu xibaar yi dinañ ko def mais lu mën a am c'est une deuxième fois ñu war a am une journée sans presse ndax biñ mujjee am ak bi ñu mës a am mhm. c'était en 2004 vingt ans après bi ñu emprisonné Madiambal Diagne mhm. léegi vingt ans après suñu man waree revenir aat ci terrain boobu maanaam terrain de la lutte mhm. ça veut dire que on a reculé ci ay acquis on a reculé ci ay droits yoo xamante ne pour man waroon nañu weesu fii li ñu fi ñu war a fi mu toll nii mooy nan la ñuy doolelee il a besoin d'aide. C'est ça. ñu wax ci leneen soxal xibaar yi euh, institution institutionnalisation wu genre muy ak euh, ak yelleefu jigéen ak góor ci biir entreprise yi ñu mën a yem mu bañ am benn bej bedd bedd compté loolu en tout cas jàpp nañu ne xaw na sooxe lool ci entreprise yu bari bari en tout cas euh, ci Sénégal constat la wu inspection du travail def rawatina inspection du travail bu Dakar en tout cas loolu mooy expliqué ndaje bu yaatu wuñ ci amal ci responsable ressources humaines yi ak délégué du personnel yi boole leen daje leen waxtaan ak ñoom leen itam ci euh, ñu wàccoonteeg ak woowee ab formation bu am solo la euh, daal di euh, tënku ci intégration ak genre ci dialogue social ak approche genre dans le management des RH ñu teewlu ci Tidiane Diallo El ñu fexe institutionnaliser lu ñuy woowee genre ci bërëb liggéeykaay yi lii moo tax a jóg waa inspection de travail bu ndakaaru ak partenaires yi responsable ressources humaines yi ñëpp ñu nga xamante ne ñu ngi intervenir au niveau des entreprises pour que ñu jël la question de genre xam na dañ ko instituer pour que vraiment ñu permettre lépp luy euh, discrimination ci entreprise yi mën a jeex ci Sénégal comme ni ko suñu constitution waxe comme ni ko suñu code du travail waxe comme également ni ko convention collective yi waxe ñoom fas yéene nañu teg ay relais ci entreprise yi ngir ñu mun a coordonner ak ñoom ci mesures yi ñu fas yéene jël ngir ñu appliquer ndogal yi. des entreprises am ay relais peut-être sax ci délégué du personnel yi. ñu mën a accompagner inspection du travail ci mission bi nga xamante ni mi ngi koy doxal pour que vraiment la question genre ñu mën ko adopté ñu mën ko intégré ci li nga xamante ni moom mooy suñu ay yëngu-yëngu ci wàllum contrôle li nga xamante ni mooy yëngu-yëngu également entreprise yi ci euh, ni ñuy créer richesse ci ni ñuy recruter également ci ni ñuy élaborer les conditions de travail dans les entreprises. suñu sukkandikoo ci agent yi nekk ci inspection de travail jigéen yi bariwuñu ci instance de décision yi ndax dañ leen xeet loolu nag jaaduwul te ñu ngi artu chef d'entreprise yi. mu nekkoon xeex bu yàgg Fatou Abdou Ndiaye ba ñu am ci ndam waaye fu mu nekk nii suivi bi euh, dafay doon jafe-jafe rawatina ci entreprise sénégalaise yi. lool li nga xamante ne moom mooy entreprise sénégalaise yi jigéen ñi euh, daanaka euh, bundu xataal bi yenn saay mais également bu ñu nee euh, yenn décision yi maanaam ci bërëb yi nga xam ne dañu koy jëlee duñu fa teg jigéen ñi et pourtant entreprise yi daanaka jigéen ñoom ñoo fay ëpp beneen bi mooy jigéen ñi li nga xam ne dañu koy jànkonteel yenn saay nekk ci ay grossesse parfois daanaka bokk ci li nga xam ne dafay gàllankoor liggéey bi yooyu yëpp je pense que ay inconvénients la yoo xam ne dañu koy jànkonteel ci bërëb liggéeykaay yi mais ñu leen di gën a dooleel gën leen a yitteel dina am solo rawatina inspection du travail ni mu ko waxee. les hmm. prises de décision jigéen ñi bokk ci ñi nga xam ne dañ ciy gën a fës. mi ngoog moo taxit RH ñoom woo nañu leen ci comme que ñoom ñooy euh, jëmmal yooyu ci entreprise yi Ndeye Fatou euh, pour que nag ñu gën ci taxaw gën cee góorgóorlu. waaw dafa jot nag parce que jigéen ñi pour ñu jox leen sañ-sañ wax dëgg yàlla man daf may jaaxal lan mooy waral saa yu ñu waree jox sañ-sañ nit ci entreprise jigéen day nekk en second mais su responsabiliser jotee malheureusement pour ñu jox jigéen euh, responsabilité dafay xaw a jafe dañ dem sax ba dañu dem ba ñiy wax waxu genre pour gën a mën a galvauder ce terme ngir gën a faagaagal wala gën a gàllankoor ñi nga xam ne ñooy defendre la cause féminine dañuy dem ba di ko naatable ak ñiy defendre yenn cause yi nga xam ne kenn bugg ko répéter sur sa plateau et malheureusement ça n'a rien à voir parce que défendre genre mooy fexe ba ñu def égalité des chances bañ a def benn discrimination bu jëm ci parce que kii góor la kii jigéen la ci li nga xam ne mooy bërëbu liggéeykaay ndax lu mën a am ak foo mën a dem xel mooy liggéey te xel yaakaar naa amul sexe servo <laughs> ak intelligence kenn mënul wax ba trouver ne intelligence bi góor la intelligence bi jigéen la <laughs> donc ci physique moom moom la différence am hmm. mais malheureusement les gens ne le comprennent pas si et les femmes ont beaucoup de combats à mener sur ce point muy fexe ba ñu di leen di jox sañ-sañ yi mais aussi am confiance ci seen i liggéey fii nag Deme Dia loolu xew jigéen ñi ñoom macha allah ñoom ñoo fi ñooy diriger mi ngoog ñu wax ci lu toll juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay junni taftal euh, ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn candidat yi nga xam ne am nañu bac euh, baccalauréat général atum 2024 wii lii résultat yu am solo la nga xam ne dafay conforté itam euh, ay la yowén mu nees na ko souligner tendance baissière yu ñu doon wax ci ñetti at yu yu ñu génn ñu sukkandikoo ci jori ngi